asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki Sénégal seen mbokk Ababacar Mboup maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara sama kàddu yi jëmee ko ci askanu Sénégal yëpp waaye nag ka ca ëpp cër mooy président Macky mi nga xam ni moom la yàlla dogal mu jiite réew mi te jot ci ci anam yim ci jote te it jaar ci contexte boo xam ni bu particulier la ma koy wax toujours muy koo xam ni kun jaayoon doole la néewal ko doole bëggoon koo toroxal itam waaye nag amoon fu mu yam ndax kam dajeeloon muy président Abdoulaye Wade it am na loo xam ni fukki xelamu xalaatu ko woon ba loola ba mu ko yemalee kilifa yi ni ko bàyyil daa teg lépp ci suuf ba yàlla dogal lii mu dogal tey jii ci moom ma yaakaar ni fàttaliku lool it dana am solo mën na am sax fàttali gi it du am njariñ lañ cey séentu waaye terewul rek ñu war a fàttali war koo woo war koo interpeller it ni bu dee daa jiite réew mi day te am yéene ci askan wi xam ni tey lu mu doon rek yàlla miy dogal mi ngi ko jaarale ci askan wi askan wi ji nañ ko teraanga ju ne ba lépp luy fitna mbaa di leen indil aw ay loolu lum ca man war na koo fanq te loolu day yaakaar naa ni xam na ko ndax président waxal na boppam ci ni dossier boo xam ne dañ koo yëkkati mu gis ni mën naa indi fitna nee na da koy teg ci suuf ndax nag jàmmi réew mi la cohésion nationale la stabilité de ce pays moo ñu gënal ay autoroute ay pont moo ñu gënal sax te xam naa sax nit ñi sant siiseeg wàdd ak jaxate moo leen gënal kilo ceeb buñ jaay fukki dërëm kon nag lii mooy priorité moo ñu ëppal solo waaye sama kàddu yi de ragal naa ne xëñ na moom mi ko war a dégg it du ko dégg aha kañ dana dugg ci noppam waaye nam ko war a déggee du ni ko déggee te day yéene ko jàmm ak yiw rekk moo waral ma yëkkati sama kàddu yi man day waxuma ni réew mii dafa am ay citoyen yoo xam ni war nañoo mën a tiim yoon déedéet kuy politique ak ku politiqueul moo ci maasa yam képp koo xam ne si def nga lu yoon tax ñu war laa woo ci yoon dañ laa war a woo ci yoon buñ la waree topp dañ laa war a topp amul ku fi tiim yoon ba des koo war a beral aw bakkan ka feggu woo xam ne yoon du ko laal déedéet waxuma lool de waaye nag bu fekkente ni askan wi nga xam ni moom moom moom xam naa ni am na ci ñennat ñu taxaw ci ñu bari ay bakkan war a tuuru te nee nañ ñu rek benn bakkan tuuroogul na fee ca Sigicoor muy policier bu gaañu di ñaan yàlla borom bi euh, jéggal ko bu fekkente ni euh, benn bakkan daanu na beneen mën na caa tege beneen mën caa tege te loolu ab tàmbali la waaye fa mën a yem kenn xamu ko kon nag su fekkente ni réew mi état de droit la li waroon a am mooy lépp tege ci yoon exécutif bi di exécuter volonté peuple bi di saytu seen kaaraange di saytu seenug yokku di saytu yi tamit seenug paj seenum njàng ak yeneen ya ci aju nga xam ni loolu lépp mission régalienne la boo xam ni état moo ko yore loolu moo waroon di am képp koo xam ni danga tooñ ak koo mën a doon yoon war naa am ci yow yoon yoon war naa am ci yow yoon loolu koo mën a doon doonal chef de l'opposition doonal premier ministre doonal doomi président ba ci président sax yoon war naa mën a am ci moom yoon ba tax na nag maa ngi xalaat ni askanu Sénégal fii ñu toll day xëñ na dégg ay wax dana leen jafe ndax fi euh, contexte bi ni mu demee la fi situation réew mi toll la waaye politisation à outrance bi nga xam ni def nañ ko réew mi luñ yëkkati ki ñu politique ko doole ju bari jiñ teg ci loxol président muy régime hyper présidentialiste justice ak parlement bi nga xam ni dañoo nekk aux ordres te loola yi tamit bokk na ci lu ma mas di wax saa su ne maa ngi koy wax bàyyi mel na ni dégguñu ma mooy parti politique yi wax dëgg yàlla boo ko càmbaree ba ci biir da nga gis nit ñi jafe-jafe dëgg la ndax ay daanaka ay lobby lañu rek ndax parti yi da ngay gis nit ku ci taxaw sax jàpp na ni coono ba mu cay def engagement militant ba mu am sax loola bis bu ñu amee la ñu bëgg ba dem au pouvoir loola dañ ko ko war a fay da ko mérité la ñuy wax te loolu lañ fi baaxoo gis loolu lañu fi baaxoo am ba tax na askan wi yii yëpp dañ ko war a seetaat bu fekkee dañuy bàyyi parti politique yi di wéyit parti politique yi waratuñoo weesu ñeent ci réew mi ñu def ko ab jongante boo xam ne sii képp koo xam ne amoo nangam ci as baatu sénégalais yi boobu parti moom ci yoon dañ koy disuur nga seeti nu ngeen def wala ngeen bàyyi xaal wala ngeen bàyyi gerte waaye ku ne jub ñuy combinante ci ndoddu askan wi bu ñu demee sax ba réew mi am fu mu toll ñu ne waaw kon na politiciens yi war a daje gisee pour lan ñu am boobu tolluwaay ak wàccuwaay ci réew mi ñoom ñooy ñan ba war a am boobu tolluwaay ak wàccuwaay ci réew mi ak ci askan wi ndax da ngeen a xam lu nit ñi xamul wala ngeen jàng lu nit ñi jàngul wala ngeen man lu nit ñi mënul ba réew mi tàmbalee ba léegi politiciens yi ñoo ko yàq ak nag lu bari ci ñi nga xam ni yàlla dénk na leen kàddu te itam ñu bàyyi politiciens yi ñuy màmm rek ba nar dugal réew mi ci guuta nii lii de mënees naa xam fi mu tàmbale waaye fa mu yem deesu ko xam kon nag guddal ak gàttal moo ci yem réew mi su amee jàmm ñëpp lañ ci war a ndokkeel ñépp waaye président de la république warees na ku cee ndokkeel keroog bi Senghor di tàggatoog sëñ Abdou Lahad dafa ni ko réew mi gërëm na la waaye yaa leen war a gën a gërëm ndax fal nañ la te far nañ la te waruñu la buñ la waroon sab liggéey du yegg buñ la farutoon sab liggéey du rafet kon nag ngërëm lu la réew mi ameel yow amal nga ngeen lu ko mat yat ba fukk loolu mooy tey ji président bu jàmm amee ci réew mi bu nee ko jër jëf moom war naa delloo askan wi junniy jërëjëf ni leen yéen it jërëjëf ndax moom kat war naa xam ne benn loxo du tàccu te dafa am boroom xam-xam yoo wax ni le roi ne peut roi lui seul kon tey buñ koy tóojal ak maajal ak lii lépp ñu jox ko c'est parce que askan wi nekk ci suuf moo ko waral kon am na lu ko war ci delloo njukkal ak teraanga askan wi nga xam ne ñoom ñoo ko fal mu bëgg leen a xoolee tey jii ci bët boo xam ne si man jàpp naa ni bëtub mépris la mbir mi doonul moom président ak Ousmane Sonko déedéet Ousmane sonk kenn la ci sénégalais yi bu defee lu dul yoon yoon dafay am yoon ci kawam waaye président yaay natt ci ni donte benn sénégalais moo ci xusiku bu doon sa njaboot lay dal danga nga ci jël ay précaution yu wér kon nag na nga xam ni keneen ku ci mën a xusiku ku mën a doon xamal ni mook sa njaboot googu wute wuñ waxuma nag état bu faible boo xam nit dafay wane faiblesse am loolu waxuma ko de parce que quand l'état est faible ñun ñëpp nous périssons nous périssons loolu itam beneen mbir la ci waaye yëf yi toll na foo xam ne si dañ jëfandikoo suñu xel te jàngate ko ci anam boo xam ne dana mën a préserver la cohésion nationale ndax man li ma gis nii day maanaam ay ngaañ-ngaañ yu metti la nar indi ci réew mi ba ci diggante waaso yi nar na ko ci indi ba ci diggante leneen ak leneen loo xam ne bëgguma cee anticiper te loolu ñun ñëpp ñoo ngi koy gis te war nañ koo gàttandu yoon na def liggéeyam te tëdd njaaxaanaay loolu mooy dëgg waaye am na noo xam ne bu ko yoon doxalee nit ñi seeni xel dafa dul teeyati ba tey nag bu kenn ni dama wax ni dafa am ku war a nekk au-dessus des yoo xam ne si wari su ko topp loolu waxuma ko dama ni exemple bi ñu war a jël ñu ñii di tuddeewu ay jullit mooy l'exemple de la Corée du Sud doomu président ba def na fa loo xóor goo xam ne ñu tudd ko ci ay pots de vin police daa dem arrêté ko mënote jëng ko ci ay tànk ay loxoom dugal ci oto président ba ngay baayam dafa génn jéggalu askan wa loolu mooy ak maandute kon justice bi war nañoo fexe ba mu tëddee noonu ba nga xamante ni kum fi mën a doon ci biir réew mi la sidna Ababacar waxoon rek dana am koo xam ni si dangaa am doole boo ñëwee sëq koo xam ne si amul doole justice dana doon sa ndey doon sa baay nga am doole ba ñuy firndeel ni am nga dëgg wala amoo dëgg waaye impression boobu man aw ko ci réew mi di Sénégal beneen bi ci des tamit ku seetlu te bu fekkee ñoo ngi waxante dëgg gis nañ ni sunu diine jii tamit diine ci crise la jëm man mii koy wax nag su ma ko waxee war nañoo xam ni li wax xam naa ko ci crise la jëm gis nañ fi ay baat yu tàmbalee jóg gis nañ fi tamit ñu daawul di wax di tàmbalee di wax ci jëme ko ci kilifa yi ñun koy saaga wala ngay ñaan ñi kilifa loolu duñ ko cautionné waxuma ŋàññi kilifa wala saaga ko de waaye saaga keneen ku mën a doon donte yaa mag ko sax ñun loolu duñ ko cautionné tey duñ ko cautionné suba violence bu mën a doon itam duñ ko cautionné tey duñ ko cautionné ëllëg waaye nag nanu càmbaraat xool réew mi nii muy tëddee ak nii muy doxee ak nii muy demee réew mi tey daganal nañ fi jigéen di jaay boppam apparemment dafa mel ni naqariwul kenn daganal nañ fi kart te laaya ba nga xam ne moo araamal sàngara moo araamal kart inamal xamru wal maysir waaye terewut ñaar yi leen lu ci nekk dagal na leen ko ci biir réew mi te dagal na ko ci turu sénégalais yi muy principe bu gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple nga xam ne amul kuy sénégalais te am carte d'identité mbaa nga am këyitu juddu mbaa nga am passeport mbaa nga am dara luy wane euh, euh, certificat de nationalité luy wane ni Sénégal gii nga dëkk rek te bokkoo ci ñi nga xam ne si njaaxum ak weddi yàlla gi ak tooñ yàlla gi ak féeteerlu gi defuñu ko ci sa aw te pourtant ñun ñëpp dañoo bàyyi mu dem te tey jii am na loo xam ne su ma ko yëkkati woon léegi fu ma mën a nekk balaa guddi léegi nit ñi danañ jóg wër si ma kenn ku ci nekk di émouvoir et pourtant lii yàlla bañ fi mu nekk nii ñun ñëpp ñoo ngi ci pat ba tax na kon yaakaar ne réforme yi ñu war a def te entreprendre ko d'urgence mooy ba ñu nee jot nañ suñu indépendance ba léegi jotaguñu indépendance ci ay caaxaan la ñu nekk. kon politisation à outrance bi nañ ko seetluwaat teg ko ci taabal ji parti politique yi lu ñu war a régler na définitivement kenn ku ci nekk jóg yaakaar ne yaay dara yor sa parti ñaar ni topp sa ginnaaw nga yaakaar ne dangaa am nag passe droit loo xam ne si sañ nga ko ci réew mi te kenn sañu ko beneen bi ci dolliku it pouvoir yi ñu concentré ci euh, loxol président dafa ëpp ci benn doomu aadama président bu Sénégal li mu sañ Sénégal président bu France sañu ko France président bu États-Unis sañu ko États-Unis daanaka ñun li ñuy wax nguur moo am ci Sénégal ba tey ab buur la wax assemblée nationale ñu jox ko gëddaam benn parti politique dootu fu am sañ-sañ 46 département du Sénégal Sénégal département bu ne ñu xam nit ña fa dëkk ñu séddalewaat ko toog waxtaane ko gox yu ne collectivité yi collectivité bu nekk collectivité bu ne am ko ko teewal assemblée nationale noonu la war a demee nit ñi di tànnal seen bopp ndax nit ñi xamante nañ seen biir ñi dëkk xamante nañ seen biir waaye jox ma réew ñu fal la ba noppi nga ñëwaat ni léegi kat ñi ma war a saytu di ma contrôler léegi xaaral ma proposé waat leen ñoo xam ne moom ngeen ñi tànn ñu may saytu. kon kañ laa lu xóor gi am ci réew mi na xam ne ñun ñëpp complice lañ ci dama ni yàlla du tooñ yàlla juumul lii ñuy dund lu ñu mérité la ñun sénégalais yi war nañoo laaj gan tooñ lañ def yàlla nag ba mu. nattoo ñu lii mu ñu nattoo tey ji ndax mënees na ko jàppe am nattu yàlla du tooñ yàlla du juum waaye lii munu teg teg teg yii kenn ku ci ne war nga interroger wu ci ñun lan lañ def yàlla ba mu nattoo ñu lii kon loolu dañ ko war a saytuwaat assemblée bi nañu fay fale justice bi jël seeni responsabilité di tëdd njaaxaanaay doon nday ji seex kenn dootu fi doon président di jiite parti ñu toogaat nag surtout la constitution di Sénégal nee nañ mooy charte fondamentale réew mi mooy contrat social bi sénégalais yi fi dëkk yépp ñu dëkk ci suufu Sénégal sud ba Saloum gànnaar penkook sowwu ak ñu dëkk ci dikk bi ñëpp ñoo bokk daje bis bu ne ma wax ni juróom-ñaari sénégalais rek te dëkk ci Sénégal koo fi gis muy dox boo sacré ba la jàngu bi la tijaan la ibaadu la wala association islamique yi euh, xaadir la laayeen la murit la ñi doo nga dëkk ci réew mi ñoo fi dox te ñii mbooli seen kenn ku ci nekk am nga kilifa kon ñii buñ leen seetee ci seen i nombre kenn ku ci nekk la la war a représenté représenté la ñu toog waxtaani réew bi ay borom xam-xam toog léegi réew mi danañ ko teg ci yoon ñu seet li ne ci suñu biir xamante nañu ñu seet li nga xam ni mënta ñàkk ñu d'accord ci loolu ñu tënk ko mu doon suñu charte fondamentale loolu doon suñu contrat social. waaye boobu ba léegi ba ne jot nañ indépendance dañu ne kaay lii ngeen war a seq kaay ñu abal leen ay bët ak i tànk ñu nangu ñu abal ñuy bët abal ñuy tànk muy jafe-jafe boobu ba léegi nanguwuñ cee wax. bu ñu waxtaanee constitution bi ba noppi waxtaanee nag. benn période de transition ndax réew mi laaj na transition daan ni nañu seet benn candidat boo xam ni yow ko juróomi at doon nga mën a toog ci réew mi mënoo toog lu fi lu ko weesu waaye réforme yii lañu bëgg nga entreprendre ko boo toogee koom-koom bu yokk yooyu sax soxlaaguñu ko waaye dafa am loo xam ne na dëgër leer ba pare ba réew mi xam ni kenn ku ci nekk boo fi nekkee àq yi nga am sa morom moom la fi am te dañ ko maase bokk kon dañ koy maase bokk kenn ku ci nekk fa nga war a taxaw nga taxaw fa la nga war a def nga def ko ndax bu dul loolu rek li muy indi mooy fitne jii ñuy bëgg a dugg te ku ne mën a xam fu muy tàmbalee waaye famille am nag kenn mënu koo xam beneen bi ci des yi tamit mooy responsabilité bu historique boo xam ne si diine ji am na ko ci lii di xew ci xew ci réew mi junj nag doy na boromum xel duma ci sori waaye am nañ ci responsabilité bu historique responsabilité bu rëy bi mbir yi tàmbalee rek ñun jàngat nañu wax ci kilifa yu bari xamal leen ni leen bokk na ci lii bu tàmbalee ba ñu seetaan ba ay wi tàkk dana jur yii may bëgg a lim ba ca njëkk mooy boroom alal yi nga xam ne ñoo doon dugal seen alal ci réew mi ngir di yaxantu danañ teey tuuti ndax réew moo xam ne mën naa tàkk tey mbaa suba kenn du ko xam di fa dugal sa alal beneen bi ci des mooy bis bu fitna ji tàkkee dana bari lool lu fi yàqu ci ay alal te ñun sénégalais yi lu ci bari alal ji mu ngi ci biir réew mi kon sunu alal la bu ma ko moomul it ka ko moom ab sénégalais la kon mel na ni maa ko moom waaye ay bakkan dana ci rot te benn bakkan bu rot rek doy na sëkk ëpp na sax lay wax te loolu yi tamit warees na cee taxaw ndax président bu fi ñëw rek ak li ñu fi bàyyi ci bakkan yu rot Senghor ci ëpp lu mu rey ci sénégalais Abdou Diouf bi mu ñëwee bari na ñoo xam ne si ay bakkan rot na fi Ablaye Wade bi mu fi nekkee bari na ñoo xam si ay bakkan rot na fi Macky mi bi mu fi nekkee bari na ay ñoo xam ne ay bakkan rot na fi loolu moo tegiwul fenn bakkani sénégalais yi di rot te ñoom seeni bakkani doom du ci des pour lan ñoom lan lañ gën a sénégalais yi acteurs politiques yi lan lañ gën a sénégalais yi ba ñoom seeni doom toujours ñu préserver leen mais doomi sénégalais yi samb suróom gay si ñoom ñoo ci war a faatu ñoo ci war a dee pour lan bakkan yooyu ci rot mën naa ñàkk fu mu fi rote rek ab sénégalais moo daanu loolu ñàkk gu rëy la waaye dama caa dolli woon ne am na yeneen yu ca naara dollikuwaat yoo xam ne moo gën a métteeti ndax alfitnatu akbaru min al qatli alfitnatu ashaddu min al qatli am na loo xam ne moo gën a garaaw bakkan bu rot mooy un buy affaissé wu état boo xam ne dafay nërmeelu dafay daanu te loolu ñoo ngi koy tàmbalee gis nit ñi dem nañoo dem ba fi mu ne di interroger wu ci ñun suñu état bii ndax mbaadu ñoo dem a dem ba dugg ci politique bi nit ñi wóolootuñu sous préfet yi préfet yi gouverneurs yi ñoo ngi naan est-ce que ñii duñ ay politiciens léegi nit ñi wóolootuñu justice bi te cette justice là est rendue au nom nit ñi dem nañoo dem ba wóolootuñu fi mu nekk nii suñ force de défense et de sécurité yi am nañu ciy sikki sàkk fi mu nekk nii te loolu wër ta mën a am ñoo ngi naan ñi ils sont aux ñii dañuy def loo xam ne si ay abus la gis nañ ci lu bari. événement mars yi fi amoon gis nañ policier bu taxaw ni diir nit ni ku tell bal mu daanu mooy ki dee woon fa euh, parcelle un policier daal di dem yéeg ci auto police bi dem yoonam kon nit ñi di tàmbali ni mais qu'est-ce qui se passe kon ñii mbaadu léegi nekkatuñ fi di sàmm république bi ak servir peuple bi waaye dañ fee nekk ni au nom d'une personne wala d'un clan wala d'un parti wala d'une coalition waaye nag am na beneen bu des ndax état bu affaissé wu ñun ñëpp mën nañu dem gasi suñu kàmb la fa doon xew Guinée boo moytul mooy xew senegal mooy police dootul am ku man sa moroom duma lay doon ku man sa moroom duma lay mujj doon mu doon une jungle kon ñun kenn amul ci ñun intérêt ci état affaissé wu waaye am na beneen boo xam ne moo gën a metti ndax bu état affaissé woo ñu ñëw dal sama kaw jël sama bakkan nangu sama alal loola am na fu mu yem ndax lu coono ba metti métti dana am fu mu yem waaye bii may bëgg a wax nag moo ci gën a métti ndax day doon mbugalum àdduna ak àllaaxira te mbugalum àllaaxira yemul fenn ndax lii di bëgg am bu amee bukki ba mattoon France danañu mat mooy raayab lislaam dana laal suuf loolu nag su ma ko waxee du ma ci xuus du ci sori ndax senegal nit ñi banneex la ñuy jaamu li ci ëpp sëñ Saliou waxoon na ko afrayta man istaxda ilaahu hawaahu te loolu mu wax ayib alxuraan la alxuraan yàllaa ko wax mu fàttali ko xanaa gisu leen ñi nga xam ni seen bànneex lañu def muy seen borom ba nga xam ni loo fi man di wax fi mu nekk nii dëgg dinaan kiy wax kan la ndax tijaan la ndax murit la ndax xaadir ndax nangam ni kon de man man lay waxal wala sama sëriñ lay waxal te dëgg gi dëggug yàlla la kenn moomu ko yàllaa ko moom. waaye li wér te wóor te wóor mooy tey jii de lislaam moom néew na lool ñu ko défendre ci réew mi na fi. ba nga xamante ni lii ma wax ñu tàmbalee ko ca 1971 ma woon koo fàttali ñu yëkkati woon euh, code de la famille bi Alaaji Abdou Aziz baax nga xam ni bañ naree euh, néewal doole ñoom Abdou Latif Gueye moo jóg dem taxaw daan ni leen bu ñuy convoqué nañ ko def ñaari convocation ku la convoqué na ma convoqué bu ñu yóbbu kaso it nañ ñëw bu la jéngee nañ ma jéng ma dem kaso mbir ma fa yem keroog sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wa kalimatullahi hiya al-ulya Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo jamonoonte woon sëñ Mouhamadou Lamine Seydi Medina Gounass sëñ Mañoon Mañoon lay ak ñeneen Njaasaan cene ba Nguraan ñooñu ñëpp daje ba fas seen kàddu ni lii lañ bëgg lañ bëgg ñu leen du fi amee te loolu ñu waxoon dañ koo bëgg ba tey jii amul ci code la famille bi kon am na lu xew sénégalais yi li ñu war a wax waxuñu ko laa wax bu fekkente ni dañ ni quatre pour cent musulmans ñoo fi ne dama ni ñun am nañ problème ak wax dëgg yàlla lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam andi woon am nañ problème boobu et c'est l'occasion nag ñu wax ko fi nekk nii nu ko waay mën a dégg nag baax na waaye dama ni ñoom kilifa yooyu nga xam ne ñooy kilifa yi mboolem ko fi nekk tey jii la ñu bëggoon li tax ñu gàntal leen ko loolu moo jugul ci réew mi te loolu waxuñu ci ba tey gisuma ñu wax ci te ña nga xam ne ñooy incarné loolu fi mu nekk nii dayo bi ñuy mën a am fu mu fi mën a doon ci biir réew mi ñun ñii di wax sax mënuñu koo am fu mu fi mën a doon te pourtant ñoom ñooy néewal doole lislaam ñoom ñooy deteel lislaam li may wax nag lu ma xam la lu am la ku xam dara it xam nga ko ku mu neexit bu la neexee nga fi neti lii mooy jafe-jafe bi bi ñu am ci réew mi système bi ñu fi teg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mutul du model bu baax l'islam ay caaxaan la alxuraan ay caaxaan la du model bu baax kon dañuy jéggaani li ñuy wax le droit positif jéggaani ay modèle ak i référence ba sax constitution bi ñu tere ni képp koo xam ne taalibe yonent bi nga mënoo fee taxul parti politique di inspiré wu ci moom ndax loolu ay caaxaan la et pourtant sénégalais yi nangu nañ ko ndax loolu ci turu sénégalais yi lañ ko def dama ni réew mi ay caaxaan a ngi fi waaye caaxaan yi ñun ñoo ko suuxat ñun ñoo ko suuxat ba mu toll nii mu toll tey jii ba noppi ñun ñëpp ñu gëmm ci suñuy bët état bii fi nekk na mu gàntale woon ñoom Mame Abdou ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma la ñu bëggoon ca 71 looloo waral ñu gàntalaat ko en 2010 ci projet boo xam ni. yëkkati waatoon nañ ko ngir code de la famille boobu ba juróom-ñaari xalifa ànd ci ñu def ko euh, proposition de loi imam Mbaye ñaa dép euh, euh, porté ko ñu déposé ko en 2010 ñu xottiwaat ko sànni loolu moo waral bërki démb bi ñu déposé suñu proposition de loi yi le 22 décembre 2021 ak le 19 avril 2023 lenn lu ci nekk juróom-ñeenti nit ñu ko xotte sànni ni ñu kàddug yàlla waxe yonent bi ak waxe ñi ngeen di wax ay xalifa ak ay seeni signature amul benn valeur juridique fi mu nekk nii ci république ak ci état ku fi wax waxi yàlla da ngay génn dem ci biti waaye fii liñ fi wax waxi république la ndax la répiblique elle est laïque ba noppi fi mu ne lii sànni ma personne ma ni lii naqariwul kenn ba noppi léegi ñëpp gëmm di seetaan ni léegi réew mi dana am moo tax fi may daaneel sama kàddu mooy ñi lii bu jàllee ñu seetaan ba réew mi ñu xeex rayante nit ñi danañ xam ne ñoo libere seen bopp waaye kenn jàppalewu leen ci kon bu boobaa raayub lislaam dana nërmeelu kilifteef gi amoon ci réew mii tamit danañ ko ñàkk surtout te na xam ne lislaam kat ni mu amee Sénégal la am ci yeneen réew waaye stabilité bi am ci réew mi am kilifteef ma maye na ko bokk na ci li ko maye kon suñ ko nërmeelee nañu xam ne ñàkk nañ chance bi gën a rëy bi ñu amoon samay kàddu fi ma koy daaneele mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi ñu doon fàttaliku ak gane àddunam démb dafa wax lu am solo dafa wax ni fu ngeen gis jàmm nekk fa dañ fay def lu neex yàlla di ko fa wax te réew mii lin fi tëral ci biir réew mii ci nos ak nosin neexul yàlla yàlla bëggu ko sama baat ca kaw mu ni foo gis jàmm am fa te te faa jóg dañ fay def lu neex yàlla di ko fa wax waaye barab bu ñuy def bu ñuy def lu neexul yàlla waxuñu ko fa bu fa jàmm njëkkee itam du fa mujj lii nag man mën naa ko waat ku mu neex mën naa ko waat ku mu naqar yi tamit mën naa ko waat waaye li wérte wóor mooy ni réew mi li ñuy tuddee jàmm du jàmm ndax opposé wu yàlla xeeb li yonent bi indi woon euh, tuutal alxuraan yaakaar ni xëj na looy barkeeloo kese la waaye nag doo ci sukkandiku doo ci attewu ci sëg dund ci lépp te lislaam bàyyiwul dara wala boog nga ni am na loo ci mën a jël ci aaya waaye am na ci loo xam ni moom da nga koy tegandi nee ndax fi mu ne réew mee ko laaj nan la ko réew mi laaj démocratie kañ mooy règle majorité te jullit ñee fi ëpp lu waral kon jullit ñi waruñoo mën a waxtaan ci seen biir sëñ mu Muntaxa woote na woote bi bët ki démb dong te fi mu ne ñun ñii nga xam ne ñoo wax ne njabootam ñoo waroon a gën a njëkk a jóg taxaw ci jàppale ko ci loolu mu samp képp kuy ab jullitit am nga ci responsabilité ñu fexe loolu taxaw waaye dañuy bàyyi mu sedd su ko defee ñu topp ci di langaamu ci politiciens yi ñu ñuy fowe ak di ñu këll-këllee lépp lu jëm ci matériel nag mën nañ cee jàppale ñoom tabax ak ay koppar joxi visa jàppandal la ay marché yooyu mën nañ ko mën nañ ko bu baax loo ci bëgg ñu defal la ko waaye luy yëkkati raayab lislaam yuqub lislaam lu koy gën a dëral du am mukk mukk mukk mukk sama baat ca kaw ba tax na kon yëf yi mat naa seetluwaat mat naa xoolaat Cheikh Abdoul de dafa waxoon ni lislaam rek la ñu am ku defe ni am nga leneen dangaa dof te xamoo li xew waaye ab jant dana fenk nga tàllal sa loxo doo ca fekk dara ngir li ma wóor man Abdoul mooy yàlla mooy gënn gi yonent bi mooy kuur gi lislaam mooy dog bi ñuy wol ku ci réerul da fande te lii ma wax ku ko natable ab jant dana fenk nga mën koo waat kuñ teg ci kuusu bàmmeel lii danga ko xam bala nga caa yegg sax bu Socrates dee tàmbali léegi da nga ci am xam bu leer kon li wér mooy nit ñi sénégalais yi nañ jël seeni responsabilité bois sacré bi toog jàngu bi toog jullit ñi toog ñu waxtaane waat réew mi dépare ci ay base yu leer yoo xam ne askanu Sénégal ñoo koy waxtaane ci seen biir kenn bañ ñoo rax la ñu dëppoo ñu tënk ko mu doon suñu contrat sociale su ko defee ñu doxal suñu réew mi seet kenn koo xam ne sii dañ naan ko juróomi at dong nga mën a toog ci réew mi nag mënoo fee def leneen lu ko weesu réforme yu ñu bëgg yooyu yëpp ñu tàmbali ko su ko defee mën a continuer nag teg réew mii ci yoon ndax kat am nañu responsabilité ci lii ñu fa fekk te du dëgg ñu jëlee ko fi am nañu responsabilité ci lii ñu fa fekk te du dëgg waaye buñ ko fi jëlee ñu teg fi loo xam ne danañ mën a préparer les générations futures te li ñuy gete fi mu nekk nii ci ay menaces bari na lool défis yi nekk suñu kanam bari na lool te bayliku gi ñu bayliku it du def lu dul encourager yàq gi te yàq gi fu mu mën a toll ñii di jéem politiciens yi jàpp naa sax ni ñoom day ay jàmbaar lañu. ak lu nu yàq-yàq-yàq ndax ñoom ñoo ngi jéem waaye ñu sane ko ñi nga xam ne jéemuñu croiser seen i loxo faste ko ni réew mi moom seen yoon nekku ci mu baax ak mu bon ñoom daal jéemuñu ci dara te ñiy politique wàllu sécurité bi ñoom ñoo koy xayma ñoo koy saytu koom-koomu réew mi kazalika wàllu wér-gu-yaram yi ñoo koy def tey jii réew mi bari na fi ay feebar yoo xam ne sii ku mu dal ci réew mi da ngay faatu te pourtant feebar yooyu bari na ñoo xam ne ku mu dal bitim réew man ngaa bañ a faatu ba ku mu daloon ci réew mi li ngay njëkk a def mooy ni boo amul moyens yi mën a yóbbul sa bopp bitim réew faju ji li ngay def mooy ni ñaan ay président mu jàppale la nga dem bitim réew wala soxnaam mu jàppale la nga dem bitim réew te lii lépp politique bu bon ak yàq réew mi ak nit ñi war a dugal seen loxo ci doxalinu réew mi génne ko ci moo waral lii di mën a am ngay ñaan yàlla naan yàlla yàlla nga may wér gu yaram ci fànn bii ma waxee léegi nii fekk na loola lu la yàlla may la ba pare ñun dañ koo jëlul ñoo ko sànni ci àll ba yii ak yeneen yoo xam ne xaju fi waxtaan yu gudd na ba pare waaye nag mënut woon a ñàkk contexte bi moo ko laaj maa ngi dellu daal di ñaan askan wi moom ñun ñëpp nañu jël suñu responsabilité responsabilité boobu nag dafa jot ci ñu jël ko ndax réew mi ñoo ko moom Chine na mu mel ay chinois rek a ko melal noonu na Amérique meg ay américains ñoo ko melal noonu na Europe mel ay européens ñoo ko melal noonu kon Sénégal gii bu ne yàcc ñi yasar mu des ginnaaw ba bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a dellu ginnaaw loola demal la aw xas la aw yàccaaral la wax dëgg yàlla te bu ñu seetee ci lu mel ni Corée du Sud gi ma tuddaat ko ñu nag moom ñoo xaw a nuróo ci ay jaar-jaar te ñun am nañ ay mbell am koom te ñoom amuñu ko waaye moom Afrique du Sud moom ak Corée du Sud amuñu pétrole amuñu gaz amuñu ay ressources naturelles waaye tey bokk nañ ci réew yi gën a yokk ci àdduna gën a jëm ca kanam lu ko waral ñoom nee nañ benn xéewal la leen yàlla defal mooy ak yuur mooy le cerveau te yuur googu mu leen joxal nag ñoom danañ ko jéem a utiliser ba mën a jariñ seen bopp jariñ nit ñi ba jariñ sax at jariñaale àdduna yuur googu ñu nit yàlla jox nañu ko kon lan moo waral fi mu nekk nii ñu bayli ko rek ba suñu réew mi ñu nar a seetaan ba ñu matul dara ci réew mi ci ab lim nar koo yàq ci suñuy kanam ñuy xool te loolu mën ñoo engagé mën a engagé suñu ak njaboot ëllëg kon lii moo doon kàddu yi ñëpp a ci am responsabilité waaye rawatina président moom mi nga xam ni mbir yëpp mu ngi ci loxoom. président faagagal saw askan du la may ndam jaay doole du la may ndam li lay may ndam mooy nga fexe ba saytu réew mi saytu njaboot gi ñëpp ba sa ak ay mat nga fegal jox réew mi keneen dem noppalu bu la neexee sax nga toog ci biir réew mi ñuy daje di waxtaan. léeg takkusaat ñu daje naanandoo kafe état bii tamit li wérte wóor mooy ni wërta wane benn signe de faiblesse wërta wane fenn dafa faible waaye nag da koy booleek du far fenn ñu xam ni moom république bi lay servir waaye askan wi la fi nekkal su ko defee askan wi tamit xam ni lu mën a xew le peuple est souverain ñun ñoo moom réew mi askan wi moom réew mi ñu xam ne bu ñu ko yàqee ñun ñoo ñàkk bu ñu ko defaree ñun ñoo ciy tonawu lii rek moom mooy wax ji wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu